mu nekk ci benn bërëb boo xam ne dafa xaw a féete wet ci quartier Jamweli école maternelle Herman Minor bu village des enfants SOS am na lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñetti yoo xam ni ñoom ñoo fay jàngee Ndeye Amy Ndiaye nekk directrice ecole maternelle bi nee na nag ren dañu daal di lëkkaloo li ñu naan jumelage case des tout petits bi nekk ci camp navétane ngir màggal li ñuy duppee Mardi Gras. ñu ngi jóge fii ci ci jàmm yi am nañ enfant SS ñoom ñu ngi dëkk fii ci village bi enfant SS ci maison familiale ñuy def anglais ñuy def aussi arabe éducation religieuse bi dañuy defaale ay formation aussi di grand chaque année dañ koy féete mais ren particularité bi mooy dañ koy def euh, féete en communion a les enfants de la case des tout petits quand on avait pour comme jumelage. Par exemple, SES, e École maternelle SES e dafa initier mhm. euh, le parrainage scolaire. cette bi nag mhm. ça a été par Oumou Barou ah. waaw moom moo ko initié. waaw. trois def na ko trois éditions ren mooy quatrième édition. Mhm. village des enfants SOS nag am poste de santé bërëbu fajukaay am logement boo xam ni lenn ci ndongo yi fa lañ dëkk waaye itim ba tey am cantine scolaire ngir xewlu ñi nga xam ne ñoo fay jàngi waaye itim ba tey am école élémentaire Tamaro Touré. village des enfants SOS bu Tambacounda nag mi ngi jàkkaarloog université du Sénégal oriental bi nekk ci yoonu Mayel Dib.